ya'lamaana ala samaawaati wal ardi wal jibaali waaye ñoom dañoo xam seen bopp fa abay abayna an yaxmilnaha yàlla nee na bi ma bindee amaana amaana mooy lan kóolute mooy sa jëf sa cër yi bu ci jëf lan lu xaraam sa làmmiñ bu ko ci wax sa jëf sa cër bu ko ci jëf jubal xocc yàlla neen laata ma koy won nit dama ko won asamaan yi won ko suufi yi won ko montagne waaye ba ma leen ko wonee asamaan moom xam ne dama koo bindee léeg-léeg mu def njekkar ci misaal léeg-léeg mu taw ba ngeen gis àdduna bi indone wala lu bari yàqu te lañ ko diggaloon bu ko defoon mooy daa war di taw taw bu yem nit ñi am gàncax gu baax te dara bañ a yàqu waaye mu xam ne mënu ko suuf it léeg-léeg de ter am lu bari yàqu montagne yi nga xam ne ñooy nekk rawaas yi ñoom ñoo téye suuf si ndax montagne ñoo téye suuf si léeg-léeg ñu bàyyi suuf si suuf si def tremblement de terre ñoom it lañ ko digaloon defuñu ko ba leen suñu borom ne damaa bëgg na ngeen am amaana ñu naa ah, ñun de loolu moom wax dëgg yàlla mënuñu ko ndax yow yaa nu bindee man suuf man suuf yaa ma bindee nangam asamaan ne yaa ma bindee nangam doj yi na yaa ma bindee nangam fa abay na an yaxmil naa ñoom dañoo lànk la wax alxuraan ne dañoo lànk wa asfaq na minha ndax ñimi ko nit moom laata ñu ko koy woon moom ko moom. waa xamala linsaan nit nit doomu aadama daal koy jël moom ne man maa koy gàddu daal ni ndax suñu borom ne xam ngeen lu ko waral ñu ne déet mu ne innahu kaana zaluman la ndax nit daa xamul boppam te ab tooñkat la mooy al muy ak jéggulu jaam daa war a jéggulu suñu borom subhanahu wa taala yéen xanaa jàng ngeen sax ci tasawuf ñu bari mboog ñuy ñuy wane maratib yi nga xam ne mooy maratibul istixfaar am na ci yoo xam ne bu buñ ko waxee sax da ngay xam ni doomu aadama yi taxu ko jóg ku soobu dëgg dëgg dëgg dëgg moo war a àgg ci istixfaar boobu te doomu aadama yi lañ soxla ci ñoom ci istixfaar jafewul noonu foo toll yëg ne sa boroom moo la sàkk ab tooñkat nga buy tooñ jëm ci moom nga di ko jégulu ndax yonent bi nee na attaibu mina danbi kaman la danba la nee na kii tuub bakkaar moo ku ko amul yonent bi alayhi salaatu salaam nee na yem bu fekkente nit kii am na taqsiir googu gàttañ lu googu ñu la waxoon léegi ci teg fi mu war a teg tànkam am na benn mbir bu des muy al istixfaar bu ko ci mën a sowe am na ñaar yu ñu mënoon a sowe benn bi yonent bi nekk suñ biir la woon kon mu mel ni looloo tax mu jëfandikoo fee fial ne li yuazibahum ndax daal lënkaloog jamono joo xam ne lam lënkaloog loolee day dem te mooy nekku rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fii mu jëfandikoo fi ismu faayil wa ma kaana laahu muazibahum te ismu faayil li muy tekki mooy li muy tekki mooy day lënkaloog jamono ji wéy ak ji teew ak ji jubli moo tax mu ne wa ma kaana laahu muazibahum wa hum kon jaam yi nañuy maase ji tuub di jéggalu seen borom mu mel ni jëfandikoo gum jëfandikoo fi'al ca la jiitu woon jëfandikoo fii ismu faayil mi ngi wane yërmandeem kon ñun day ñaari sécurité lañ amoon ci ak njéglu suñu borom yàlla musal ñu mu yonent bi ne ci suñ biir booba jeex na kon nag benn amaan lañ dese muy lan fa laysa lana amaanun min azabillah illa al istixfaar benn sécurité rek lañ dese muy jéglu bu amul bu ko jaam bàyyeetul xel na xam ne kon léegi perte na lépp ndax bi jiitu woon mooy rasulullah ne suñ biir sallallahu alayhi wa sallama te loola jeex na léegi li fi des nag mooy al istixfaar bu ngeen gisee ma ci insisté taxaw ci lu baree bari maanaam daanaka thème bi bu ñu ko yemale foon woon foofu baax na istiqaama day lënkaloog istixfaar ginnaaw jaam bi day gàttañlu te bu yonent bi newoon suñ biir danañ mucc loolu am loolu jàll na istixfaar moo fi sës kon nañuy jégalu suñ borom subhanahu wa taala moo moo taxoon moo taxoon Seydina Ali mas naa wax ni man defe naa ne yàlla du mbugal jaam yi jullit ñi ñu ne ko lu tax mu ne jaam buy jéggalu yàlla du ko mbugal ñu ne ko lu tax mu ne lu tax mu inkewal ko mën koo jéggalu ne lu tax mu def ci xel mi loolu bi yàlla defee ci xel mi loolu rek mu mën koo jéggalu ne na ci laa xam ne duñ duñ ko mbugal yonent bi wax ne ittaqillaa ay su kunt wa at bihi sayiata alxasanata tamxuha nee na jaam fu mu nekk war naa jiital ragal yàlla bu jiitalee ragal yàlla ba noppi du ñàkk yàlla di ko nattoo muy def ay ñaawteef waaye nee boo defee ñaawteef bi ci saasa daal ciy taftal lu rafet yàlla fare ko ko yàlla jox nañu ay sukkandikukaay yu bari yoo xam ne buñ ci jaaree danañ mën a mucc xëy na jaam bi war sa taxaw ni mucc yomb na déedéet. maa muur seeni xol ba ñu maa jéggulu mënuñu maa bàyyi xel kon pexe amul ci loolu wala si na tadaw saadawum hudan nee na ñi nga xam dañoo jub nag. man yàlla maa leen dolli ak njub man yàlla maa leen ko dolli ba ba nga xam ni njub gi ñuy jéem bis bu set ma ciy dolli njub gu yees ngir ñuy mën a topp sama yoon wi ba mën a agsi ci man wa yasiidu llaahu alladina htadaw hudan nee na ñi jub man yàlla maa leen dolli ak njub kon mu mel ni li salaa sallam waxoon rek ne saddidu wa xaaribu na fexe bay jub wala bu ngeen ko mënut it ngeen jege ko waa mbokk yi ku tegoon am njum ne danga koy jam yor fett yu bari walla bal yu bari te bàyyi bal bu moy nga jël beneen bal bu mooy nga jël beneen bal bu mooy nga jël beneen bu yàggee nga jam moo tax mu ne saddidu waxaaribu njub gi bu munta saxit dee leen ko jéem mu xaawala képp koo xam ne jéem na jéemay tax a man loolu wolof dana koy wax saddidu waxaaribu mooy lan na ngeen jéem a àgg ci jëmm dëgg dëgg al mooy saddidoo bu ngeen jéemee rek di jéem a jub jublu rek neen da ngeen mas a àgg ci al waaye ku jéemut nag ku jéemut doo man te ku jéem-jéem sunu borom jàppale la ndax waxoon na ko ndax ihdina siraatal mustaqim waxoon naa leen ko léegi mooy lan won ñu yoon yi ba noppi ne suñu wet te jàppale nu loolu lay tekki waaye ihdina ila siraatal mustaqim mooy won nu ko te banu moo tax biñ koy ñaan néewuñ ko ihdina ila siraatal mustaqim dañu ko ihdina siraatal mustaqim won nu ko te téel nu sa bopp yaa ayuha alladina amanu taqu llaha wa qulu qawlan sadidan yéen ñi nga xam ne am ngeen a ngëm ci man te ragal ma dee leen wax wax ju jub wax ju jub nag am na lu muy maye yuslih lakum amalakum nee na bu boobaa seen jëf lu ci naroon a ñaaw man yàlla maa koy defar mooy li ma waxoon léegi wa yaxfir lakum sunubakum bu ko defee bàkkaar yàlla moo ko mooñaal ab jaam waaye su ko defee nee na ci laay jaare jéggal leen wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faasa fawsan azima ku topp yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam topp yàlla ci ay digaleem yi mu jaaree ci yonent bi nee na ñooñu texe nañ texe gu rëy rëy aaya bi ma doon jàng léegi nag moo ci topp inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa asfaqna minha wa amalaha al insan innahu kaana zaluman jahula kon mu mel ni mbokk yi sëriñ bi radiyallahu taala anhu asayxul xadiim am na mbokk mu wax ci moom ni ma minna illa man taaba an isaamatin wastaqaama illa min iwijaaj illa sayxal xadiim radiyallahu taala anhu nee na yàlla may na sëriñ tubaa lépp luy ñaaw ñaaw mus cee jar ci istixaama la sax nee na ku dul moom am na loo mas a def sa borom ba jégalu ko mu jégal la ko wala dëng-dëng boo mas a def sa borom jégal la ko ba mu des Seexul Xadiim bu ngeen gisee ma indi loolu waxuma ne dañ ko dañoo war àgg ci moom ndax munu ko ndax loolu jagleel gu ko yàlla jagleel la waaye ndegam nag yàlla boole nañoo jëmm ju mel noonu yàlla may ko ci boppam musu koo mooy ci lu toll ni tarfatal ay ni ñu bootu ci ginnaawam mu bindal nu banu fi baal baal nu fi wax baal nu fi jëf baal nu fi kon bu nu góor góorloo tuuti sunu borom subhaanahu wa taala danu dimbali dégg wax ji de maa ngi lay ñaan yow yàlla nga def sama wax muy lu jub waaye bu jubee ba noppi nag maa ngi lay ñaan nga def ko muy jubal wa fikrati nawwir waxal bi arsida nit ki balaa mën a wax day xalaat waaye nee na samay xalaat maa ngi lay ñaan yow yàlla nga def ko mu leer naññi ndax bu leeree mooy tax bu génnee jub te bu boobaa sa leer tàbbi ci ba nit mën caa jube sama xolit dafa am solo lool ci nit ki mooy lépp sax ndax yonent bi nee na am na dog wu ne ci doomu aadama su baaxee lépp baax su yàqu lépp yàqu ñu ne ko lan la mu ne ala wahiya al qalb na defar sama xol ba kàddu yu jógee ci man dugg ci xol xalaat bi koy génnee na leer bu leeree doon lu jub te bu jubee mën a jubal wajaal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida lépp luy lu baax nag sëñ bi nekk na ci waaye ñaanal na ko it ñi ko yàlla booleel bu ngeen ko seetloo wahab lana bihi siraat al mustaqim siraata man maala li gayrihim saqim yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga may ma ak ñi ma àndal ñëpp yoon wu jub xocc yoon woo xam ne soxla wuñ ca koo xam ne daa am feebari ñàkk topp yàlla saqim mooy li yonent yàlla ibrahima waxoon bañ ko yóbbu ci xërëm ya mu ne ini inni saqiimun tëdd bañ na du dem ñu fekk ko fa ne ko loola tee dem mu ne inni saqiimun mu mel da cey jublu dama feebar te ab yonent du wax lu ko yàlla wax loowul dëgg rek lay wax ndeke da cey jublu ne man dama doon koo xam ne aajowowuma yàlla yàlla dama aajowoo yàlla sama xol dafa aajo woo yàlla muy inni saqiimun mu waxit ni wahab lana al imaana wal islaama wa ahsani al wa istislaama yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga may ma imaan may ma lislaam may ma it moo wommatu jëm ci yow ñaanal na ko boppam waaye ñaanal na ko bëggal nanu imaan muy gëm yàlla gu sax dakk bëggal na it lislaam ju rafet muy wammatu jëm ci yàlla yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi alayhi salaam julli koo xam ne man sañ tubaab maa ngi lay ñaan ma amee ca aji gindee joo xam ne dana may indil gaañu baax ndeke ñim doon samp sax di leen tofal mbooloo mi ngi ci jublu woon ñu jël gaañu baax ñu indil ko dégg nga li wax de salli salaatan li taquudu mursida yaquudu lii bilantihaai russada russada nanga ma jox gindeekat yoo xam ne danañ ma mën a indil ñu baax te bu ñu baaxee dem ba àgg ci ñoom it ñu mën a gindee xam nga sëriñ saaliwu radiallahu anhu eh, ñu bari fekk nañ ay jotaayam muy wax ni am na ku mës a ñëw na sëñ bi defar ma mu ne ko defar taqoo la laaj waaye Abdou Dieng Abdou Dieng Balla Faali di moom defar naa ko moo niroog bayit bii sunu boroom sëriñ bi daa bëgg ñépp àgg ca ndax sëriñ Abdoulaye mas naa wax ni sëñ bi àgg na ci yàlla waaye àggale ca moo ko moo ko dese àgg na ci yàlla moom bërëkk waaye àggale moo ci dese ci la nekkoon nag ba àgg ci di ñaan am ñu ko ko mën a def indil ko gaañu baax mu mën leen àggale ci yàlla kon moom lay wax ne in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bi ma bihi nassa xiraayu salafi àgg na ci ne bu demee ba jamono wéet ci loolu sax aa ah kon jëlal mbindum gaañu baax ñi di ko jàng te di ci roy loolu moo waxoon kat moo indi mu àgg ci ne ne sama xasida yi mën na loolu danga wax ji sama xasida yi mën na loolu kon bu demoon ba àgg ci jamono gisuñu ku ñu mën a àggale ku téye ci xasida yi te fas naa jàpp ci lool sa digg ak sa borom ak sa digg ak Serigne xam ne loola man na ko dana la ci àggale waaye nag loolu laaj na nag li ñuy woowee wasatiya muy ak diggu doomu digg doomu daa baax ci doomu aadama mbokk yi xam naa waxtu wi du ko maye waaye diggu doomu kon danaa ci wax lu bari ya sunu borom subhaanahu wa taala mbooloo buñ dajee kam cay nettali ay waxam. mooy ka ca waxi nit ñooñu amoon seen ab tool te miskine doon leen ci ñaan ñu dem góobi ko kane kane ay waay gars yi yéen bu ngeen mënee am toob tool bu ngeen di góob du ngeen sant yàlla ba ñii di leen ci ñaan ngeen di bañ moonte àndoon naa ak ñoom dem góobi de waaye wax ju digg doomu ja moo tax yàlla nettalee aw xam xaala aw satuhumu da nga ka ca gën a digg doomu nee na alama qul lakum law laa doomi bàyyi yuusufa ya biñ koy rey ki ne nañ ko tàbbal ci kàmb gi moo ki moo ñeen rey ko ñoo yem ndax kàmb goo xam ne xamoo ne jaana nga ci xamoo lu ca nekk mu ne laa taqtulu yuusufa qaala qaailun minhum laa taqtulu yuusufa yàlla dana qaailun minhum te ñoom ñëpp a wax wa alquuhu fi xayabaatil jubbi yaltaqitu ba'du sayaara yàlla neen daa xaw a daa xaw a digg doomu tuuti moo tax ma nettali ay waxam kon xasida yi digg doomu dana ci baax lool ndax am na ku ma sa laaj Serigne Saliou ne ko xasida yi dama bëgg nga wax ma guñ ciy jàng guñ ci dul jàng sëñ bi ne ko boo demee ba gis guñ ci dul jàng nga indil ma ko man ma di ko jàng waaye man am na yu may jàngalu loolu wasati yaa baa noonu nañu nañu xoolaat yëf fii te wax nañ ne àdduna bu jaxasooyee ñëpp war a régler seen bopp nee na bu boobaa bul ëppal bul sàggan saxal ci sunna waxoon naa leen léegi na leen al istiqaama bayna al ifraat wa tafriit ci diggante ëppal ak sàggan ci la istiqaama nekk ci digg bi sëriñ bi ne fa axbaru bi anna al istiqaama nihaayatu salaahi wal nee na istiqaama nee na fa mbaax yem fala al istiqaama yem nee na fa mbaax yem fa la tedd nga fa la istixaama yem fa fa tedd nga yem fa la istixaama yem sunu boroom sax bi mu jàkkaarloog jaam bi di ko wax ne ko waaw lan moo la wor ci man yàlla dafa jëfandikoo bi rab bi laaf ci ka mu jëm ci ki muy waxal te mënoon na ko jëbañ a fekk yaa ayuha linsaanu maa xarraka bi rabbikal karim boobu la nit war a xam ne yàlla may na ko sens yow nit ki lu la wor ci sa boroom bu tedd bi lu tax mu jël karim naatal ko ci boppam te mënoon a jël beneen muntaxim wala keneen waaye daf ne bi rabbikal karim kon doomu aadama waroon naa xam ne yàlla jublu koo jéggal rek la si xangum mu jéem a góorgóorlu moo teg ci moo tax mu teg ci àll si xalaxaka fa sawaaka fa addalaka fi ay suura yàlla fekkontoo ne dara war na ko kon jaanam wàcc na ndax bind na la yemale la jox la cër yu mat sëkk ba pare nag def sa suura ba ku la gis du la daw te bu ko neexoon maasaa rakk ba ko nu ko neex la lay composé waaye defu ko waaye lam ca teg nag wal xiyaas billahi taala kallaa bal tukazibuna bi diin kon ba mbokk yi ñun weddiwunu diine ndax diine ñu tax daje fii waaye bi muy fi taxee daje ba noppi nag dafa am lu ñuy dund te loolu ñuy dund ñu war koo téye nag di ko di ko setantal di ko xool loolu moo waral loolu yi ñu nekk Euh, kon mu mel ni lim na xaari xaaribu dama ci del siwaat saddidoo wa xaaribu nee na saddidoo mooy lan day leen jéem a jub ba mën a àgg ca istixaama su ngeen ko mënul ngeen jëm di ko jéem a jege moo ko teg njum di jéem a fet saa yu mooyee jëlaat geneen fet saa yu mooyee jëlaat geneen fet bu yàggee dana jëm loolu mooy saddidu wa xaaribu martaba yii nag nee na jullit bi waru ko génn mooy bay na tasdiid wal muqaaraba nee na faaw ngay ngay jéem a jubal wala nga di ko jéem a jege nee na faaw loolu nga di ko def su ko defee boobaa li ngay diir di nga ko mën a jàmm istixaama nag loo gis am na la gën a yitteel ci istixaama mooy lan al ubudiyya muy ak jaam fexe bay jaamu yàlla te di ko sellal te mooy xaaye bi taxoon ñu bind doomu aadama doomu aadama lenn rek tax yàlla wàcc ko fi moo jinne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni binduma jinne ak nit nit ñi dañuy wax sax binduma nit ak jinne waaye yàlla dana binduma jinne ak nit lu dul ñu jàmm loolu rek moo tax mu wàcc leen ba nga ne iyyaka na'budu yow rek la ñuy boo ne woon na'buduka mën nga cee ataf leneen waaye ba nga ne iyyaka na'budu loolu xasru la yow rek la ñuy jaamu wa iyyaka nasta'in yow rek lañuy ñuy sàkkoo ko